alquraanay li may bégal loolu mooy yàlla lam dogal suma aayee ci moom fegal dama koy tayi xamti ko alquraan moom du wax ju ndaw ku ko gëm dëgg bàyyi jaw ku mu yéegal nga jëm ca kaw nanu koy jàng bëgg ko alquraanay samab ألم يعلم ألم يعلم بأن الله يعلم loolu rek ku ko def ko doon sikkar xalaat booy bëgg a def lu bon rek waxat sa bopp ni la xalaat xamoon yàlla ngay gis hmm? xam ne booy bëgg a def lu bon am na boo xam ne bu ñëwee nga daw bàyyi ko. Sazaline Gueye buñ ko dee portelé canaba gii la dëkkoon fi la gane àdduna ci ñaari waajur bu góor bi tudd Serigne Tafsir Mor Gueye ju jigéen ji tudd Soxna Njéeme jóob Soxna Roqaye Diop waaye gën a siiwee ci Njéeme eh, ñaari famille yooyu mu jógee di famille Ngéyeen ak famille Njóobeen fii ci Canaba ay famille reen lañ fi ay cosaan lañ fi ci wàllu jàng ak jàngale ak xam-xam eh, ci biir eh, ñaari famille yooyu la gënee àdduna yàlla dogal nag bàyyam génn àdduna ci age boo xamante ni bu néew la ci moom ndax bi baayam di génn àdduna sëñ Mor Gueye mi ngi ko fekk ci mu am 11 ans. semmal magak gone ku ci mos tuuti yootu ko yàgg naa fajal ku ko gëm rag bi may ñëw ci ay loxo ba mu am am naa bac plus un def naa euh, benn année fac droit mais boobu fekk na mënuma lire arab j'avais vingt quatre ans bi may ñëw ci ay loxoom amoon naa ñaar fukki at ak ñeent mënuma woon a lire arab ferma woon ijji man ci boobu situation ci laa ñëwee ci ay loxoom xasuuray ginnaaw anañu sun xamoon mbiram jege ko mag ña daa ko jàng bu teel a dem bu teel a dem bàyyi ñu fi rek ji xam moo ci dëkk iqra jàngal bu yàlla waxoon ne ko julli wala wooral wala defal asaka wala nangam ci xel day laajaan mu ni ko nu ma koy defe mu door ko yóbbuwaat ca daara ja ko jàng ko kon jàngal ma war a jëkk waaw lu ne rek xam nga moo war a jëkk def ka al ilmu qabla al qawli wal amal